Euh, mbirum napp Sénégal day réew moo xam ne dafa am juróom-ñaar téeméeri kilomètre côte yoo xam ne ci géej gi la loolu dafa nekk euh, avantage bu mag a mag a mag waaye fokk ñuy seet nañuy jariñoo avantage boobu mbirum napp bi bari na ay coow ci ni ñu ko déggee moo tax nu sol sunu daal vraiment ñëw ci acteurs yi waxtaan ak ñoom ba xam ku ci nekk problème yooyu naka nga ko naka nga koy dunde nun nag li nu bëgg mooy alal ji nga xam ne day jóge ci géej gi di jariñ jëkk waa Sénégal ni mu ware bala cee mën a keneen mën a am euh, njariñ néew nu nanu ngar dajjoo lépp bu kenn am dara ndax loolu ci jam guddi yi nu toll ci àddina bi soo ko defee doo am dara waaye nag danu ne nanu seet ba lu ci ne euh, la cay ëpp ca njariñ la ginnaaw alal ji sunu alal la na eh, mën a jariñ waa Sénégal yëpp bu boobaa ñi ci des itam lañ ca war a mën a am ñoomit ñu am ko ci ku nekk gis ci sa bopp.